muy Tawfekh ju kenn xamul fu fii ci Tawfekh Production ngir bu ñu dugal rek nga mën see kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa ngay ak xeewal yi moo ko may sant la goog ko waru kon ilaa Tuuba ku lebulewul war a fay kuy garul bi su bu fayangi. nañ wokk gaali te màggal màggaluk Tuuba nun jekk nan jekku nan màggal ko rekk a ci des nañ def ba def lu nu mënul ngir màggaluk Tuuba safar la di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door di waajal magaluk Tuuba la in sakartum ku koy tafsir te bëgg mu wér ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon danga gis la azidannakum te bu wér añub safar dafee teew li wor na waa Tuuba di berne ñaar fukki fan at mu ne ngay gën a mën doo pett doo daanu yem na màggalu Tuuba moo jara miraasu moo jara dox ga moo babawal xawma ci dunyaa lu jar màggal si woo Tuuba bis la bu ñuy sante tey ziyaare ahmaduna jullit ñi bennoo di dundal diine biir tuuba mbokku ya jokkoo ña di wallare ñëw dajewaat koom bi yëpp di dox cey màggalug tuuba nit ya jël seeni kër jox gan ya kenn du xatal sàmm na nga jël teraanga yépp nga jël sëriñ bi jël njaboot gi jël bernde yi xam ni yoor yooru sëriñ Ousseynou Kane moom fotuwul nekk ci biir waaye dafa ubbi ànd ak taalibe yi nag ndekkendoog ñoom lii nag mooy ndekki beneen ndekki nag mooy lii am na ñoo xam bu ñu xëyee du tale nii ndekki waaye ndekki ginaar nekkee xar nekkee neen mini pizza yi fataay yi borosé bi jërëjëf kan waaw jërëjëf kan Mama Aïssa jërëjëf kan jërëjëf kan Mama Aïssa jërëjëf kan jërëjëf kan kan la yàlla jërëjëf kan ah jërëjëf kan dem jàll jërëjëf kan ah jërëjëf kan dem jàll jërëjëf kan jërëjëf kan بي سليمان نوح يونس اليسعين وزكريا يحيى ويولام bis ba way ba géex mooy màggalug Tuuba bismil ilaahi na ngeen jug teeru bis bi bis ba yayoo way ba mooy màggalug Tuuba mooy bis bi tax tey ku ney def bis te deefu la caw bis boo fi dégg dafay waajal màggalug Tuuba ndegam solos bis bi daf laa reer téere yi tey. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jëfaat Serigne Saliou waaw ndongo li la Moussa Samb mu Serigne Ousseynou Kane nekk taalibe si biir kër Serigne Ousseynou Kane euh, nekk si membre kuréel Riyadou Salihine di tamit membre euh, daayira Riyadou Salihine waaw màggal gi moom mooy noonu màggal gi ñëpp xam nañ ni jëfu Serigne Touba te jëf moom ñëpp xam nañ ne lu mu gën a kawee rek sëriñ bi gën a bëgg loolee tax sëriñ bi sëñ Ousseynou kan borom xalima gi moom sëriñ Saliou doon sàkku chaque année ñuy gën a yéegal mbir mi di gën a taw féexeel mbir mi di gën a ma taaral mbir mi te ku teew tey ci màggal gi bërki dem ba léegi ñoo ngi màggal samdi ba léegi ñoo ngi màggal te dañuy màggal ba keroog ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñibbi waa ñoo ngi santaat sëriñ Saliou ci tawféex gi ñu defar ren nga xam ne am na tawféex goo xam ne am na comment fu mu commencé waaye amul fu mu yem nga xam ne Serigne Saliou mi nga xam ne moo ñu booleeg Serigne Ousseynou Kane nga xam ne moo ñu dimbali dimbali nañu si xasida yi dimbali nañu si jëf dimbali nañu si liggéey man nga xam ne man mii rek suma jëmm ji mën naa wax ne nii ren lu ma yëg si màggal gi dafa dafa yéeme ndax damaa wàcc rek mu ne ma tay tay moom yéen a yéen kii te loolu dama see am benn maanaam kii nii euh, benn jàngat bu bu am solo que ni servir nit ndekete moom mooy dëgg-dëgg liggéeyal suñu borom sooy servir nit man maa ngi soog a comprendre la moo tax Serigne Touba ne nii moom serviteur la xadimu rasul la maa ngi soog a comprendre loolu te loolu noonu xaw ko lu dul bërki dem maa ngi koy wax sax ay mbokk taalibe yu bëri kon ndekete ñun Serigne bi liñ ànd liñ ànd ak moom chaque suñu xëyee chaque suñu suñu jubloo si liggéey bi dina am leneen lum ñu jàngal. te màggal gi moom kawe na sama njoot bërki démb laa koy yëg sama xol ba fi ma fi ma kii fi ma fi ma fi ma fi toll nii ñoo ngi santaat Serigne Saliou di santaat Serigne Touba bu wér di sant tamit Serigne Ousseynou Kane ndax tey su fekkee que ni jël nañ euh, am nañ nekk nañ exemple si nekk suñ jëmm ju xeebul gi nekk nañ exemple si yenn nit ñi mu grâce à moom waaw taxawu nañu fa ñu war a taxawoo defar nañu fa ñu war a defaree jëmbal na suñu suñu suñu suñu suñu jëmm yu xeebu yi nii te man mii sax man aba man mii exemple laa ci ndax mën naa si wax lu bëri ndax kër gi yàgg naa fi ba mu fi ñëw lu ndaw laa ba mu fi ñëw maa am 11 ans xam nga koo xam koo xam ne yow ba muy ñëw si kër gi 11 ans la am ba tey jii nii nga xam ne kër gi moo ma defal lépp fii laa jàngee fii laa amee sax bac lépp moo ma ko defal kon man am naa am naa droit pour wax am naa mën naa wax waaw loolu noonu nag ñoo ko koy santaate di ko santaate Serigne Saliou waaw di sant tamit Serigne Touba nga xam ne. moo waral li maam doole gi yàlla nañ gën a jëm kanam maam taalibe yi yàlla nañ gën a tawféexe yàlla nañ gën a jiboo suñ biir maam lii nii waral wane na lu bëree bëri bëri bëri di santaat tamit waa Kayaar mi nga xam ne mooy ñoo yoroon mberne yi waaw mberne yi kawe na njor man la Assane Diouf jëwriñu daayira Soxna Faat Jaxate bu Pikine nekk jànkatu xasida jànkatu sëriñ bi maa ngi nuyu mbokki taalib yëpp di leen siyaare di am mbégte lu rëy ci teewaat fi teewaat ci bisab sëñ Tuubaa bi nga xam ne sëñ Tuubaa moo ko woote leen boppam ne ñëw leen sant ma ci yàlla sama borom daal di nag bis bi ku ko xam xam ko ci bernde ak xasida ak alxuraan nin ko dundale ci yoor bi at mu nekk noonu lañ koy dundale ndax màggal gi yoor yoor la xara ci yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar ci yoor yoor bi la woon lépp luy xew ci yoor bi la yoor yoor la xewee moo tax sëriñ bi di ko dundale nii mu koy dundale saa su nekk di ko ànd yëpp ñuy delloo sant nag Serigne Touba Serigne Salim Mbacke ci ni munu defal sunu Serigne bi nga xam ne jàmbari Serigne Saliou ji di liggéey Serigne Saliou nga xam ne léppam xarakaatam yëpp sëriñ Saliou la Serigne Touba la Khadim Rasoul doon jàmbaar lool doon ku nangoo sonn ci yoonu Serigne Touba bi koo xam ne alalam ak dooleem jëfam ñaqam lépp du tàyyi du toqi rek ngir Serigne Touba muy Serigne Ousseynou Kane borom xalima gi moom Serigne Saliou Mbacke fii ci Touba Mawahibou ci pàkk donga Serigne Saliou Mbacké nga xam ne pàkk bi ñu nekk Serigne Saliou moo ko rëddal boppam jox ko ko te ba mu ko jox sax fekk ko fi saw la ko fekk mu ko jox ko ko te booba sëñ bi dem ni mu demee ba tey ji mu demee ni mu demee kon lépp Serigne Saliou Mbacké la fii nag ku fi ñëw da ngay dund màggal da yëg ne màggal nga ndax euh, comme ni ko sëñ Moussa Samb mu jël kàddu lekk doon wax màggal gi barki dem la tàmbale woon muy samedi ci bernde yi nga xam ne ab gétt la sëriñ bi dem jolof jënd ak gétt jënd ak gétt nag nga xam ne màggal gi su desee juróomi fan rek ñu tàmbali ndeysaan di bendeel gan ñi ba juróomi fan ci kanam lépp rek gan ñi nga xam ne ne ko sëñ Tuubaa bëgge woon ni la ko sëriñ bi di ko defee fii ci Tuubaa maay bu ndax boo ñëwee tey ci yoor yoor bii tey ci suba màggal gii bi ñu xëyee waa daal soxna Fatou Diakhaté bu Kayaar ndeysaan joxe nan fi ay ndékk yu mucc ci ayib nga xam ne affaire séeréer yoo xamante ne séeréer yi bég nañ lool dana berndeel doomu aadama yi nga xam ne fii ci Touba Mouhahy bi yokku na dafa yokk te ca kanam la jëm ndax saa su nekk euh, doomu aadama yi fu nekk la taalibe yi di bàyyi koo ak ci réew mi bitim réew ak fu mën a doon rek ndeysaan di ñëw di màggal si fii ci Touba Mouhahy moo tax fii ku fi ñëw ñu toppatoo la berndel la sela soxol nga yi dund dëgg-dëgg màggal gi ba bu déwénee boo waxuma la yow sax booy ñëw da nga indiwaat ñeneen pour euh, ni ñuy dundee fii màggal gi kon nag lépp nag suñu jàmbaar ji la suñu Ousseynou Kane borom xalima gi moom Serigne Salif Mbacke ndekki yi mucc mucc ci yeeb waaye nag xiwal yaa ngi ñëw muy añ yi yaa ngi ñëw reer yaa ngi ñëw nga xam ne taal te it fii ku fi ñëw doon ab séeréer wax dëgg yàlla boo demee di nga bëgg waaw ndax lii dara manqué fi barke Sëñ kon nag ñu ngi ñaanal Cheikh mun Mountakha sunu borom yàggal ko fi fi yàgg lool tànn ak wér ak wér ci barke Sëñ Touba di sant daara yëpp nag daara yii bokk ci kër gi yëpp daara daadu saalixiin daara xidmatu saalixiin daara soxna Faat Jaxate Grand Médine daara soxna Faat Jaxate Kayar daara soxna Faat Jaxate Pikine daara <clears throat> Kanzul Moutadine daara Touba Tawfeex Ngeeñeen daara Miftaaxu Nas eh, Tiwaan Pël daara xidma wax dëgg yàlla ay jàmbaar lan ndax ñoo takku rek ànd ak sëriñ bi laxasu nelawatuñu yaandooratuñu lépp rek yittey sëriñ bi mooy seen yitte kon nag ñu ngi leen sant baax di sant mbooleem jëwriñ yi su ma tuddee sëñ Pam Ndiaye professeur nga xam ne mooy jëwriñ universel mu yóbbaale jëwriñ yi topp ci ginnaaw yëpp waaw ñaana ñaanal seen kan borom xale mi yàlla na fi yàgg te wér ci barke sëñ Touba yàlla na ko teewee déwén ñu bare bëri su déwee ne yàlla na dàq ren ci barke sëñ Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfe ci sëriñ Saliou jërëjëfe sëriñ Saliou jërëjëfe sëriñ Saliou man la mbub sécurité sëñ Ousseynou Kane di Baye Fallam maanaam màggal gi rek moom dañuy sant rek ndax màggal gu ñëw gàcceel ba ba mu bu wees moo tax sant rek nañ siy def ndax bii dafa kawe njort maanaam jég kawe njort ba ñëpp la yéem mais ne duñu duñ na guleet ndax màggal bu ñëw rek day gàcceel ba si topp di sant daayira yëpp daayira yëpp nañu sant su sa Muxtadin Riyaadu Xitma faat Diakhaté Pikine Fat Diakhaté Grand Médine Fat jaxate Kayar ndax ñoom ñëpp ñëpp lépp lu ñuy liggéey ngir jëmm sëñ Ousseynou Kane borom xale mi gi nañ koy defee sëñ Saliou ndax lépp sëñ Saliou la ndax maanaam moo ñu nàmpal si sëñ Saliou ba ñu euh, nàmpal ñu si sëñ Saliou ba gisuñu ñu leen lu dul sëñ Saliou waaw ndax moom daf kaa kennal moo waral sëñ Saliou kennal ko ndax fi ab ndongo ñu jox ko pàkk ndongo kennal ko mu kennal sëñ Saliou nag moo war a sëñ Saliou kennal ko moo tax it ñun ñu kennal ko ndax maanaam moo ñu nàmpal si sëñ Saliou waaw di sant ñëpp nag dina màggal gi de berne yi mat na sëkk ndax ñun man ba ma fi ñëwee léegi mat na douze jours ñoo ànd dem Jolof ànd dem fu ne jënd lépp mu mu metti lool si moom ndax naaj bi tàng na sond na mais dafa ne lépp daf koy def ngir bégal jaam yi ndax maanaam sëñ Touba loolu la wax waaw ñoo leen euh, sant la ma suñu borom benneel jaam yi defal leen ko mu fonk yor-yor bi lool ndax maanaam am na ñuy màggal dañuy ñëw ziyaare dem seen dal xewlu yooyu nii jàng xasida am na kilifa yi jàng xasida want lii màggal màggal gi dëgg dëgg dëgg màggal gi mooy yor-yor te moom daf kaa fonk respecté ko waaw moo tax ku ñëw fii si Mawahibou yor-yor di nga xam ne màggal nga ndax moom daf koy màggal waaw di sant ñëpp nag di la sant ndax maanaam. fu ñu fu ñu xewlee euh, Tawfekh ci production day teew kon ñun amuñu seen fay te li ngeen di teew ngir bëgg sëñ bi moo waral loolu sëñ bi yëg na loolu xam na ko moo tax fu mu xewee dañuy gis seen jëmm ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi siyaar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw ñu la mbokk taalibe bu tudd Mouhamadou Lamine Dieng di ndaw boo xam ni daa ñëwoon màggal si si bërëbam si kër kilifam si kër euh, sëriñam boo xam ni moom laa sukk bulu jox ko sama bopp àdduna ak alaaxira ñu koy wax euh, sang bi sëriñ Ousseynou kan borom xalima gi di jàmbaari sëriñ Saliou boo xam ni moo ñu xamal luy ab murit nàmpal ñu si sëriñ Saliou ba ñu xam kan mooy dégg-dégg sëriñ Saliou def ñu ay taalibe xakkan waaw ñun daal ñu ngi koy sant bu bër di sant képp koo xam ni rek ñu ngi ñëw si màggal si bërëb bi ñuy wax Touba Mawahibou ñu gën ko xam si pàkk ndongo yi màggal gi daal ñu ngi si sant ñëpp di xam ni daal taw féexe na loolu macha allah lépp loo xam ne rek sëñ tuubaa digle na ko muy si bernek si jox cër nit si respecté nit si respecté dëkk bi lépp loo xam ni rek maanaam borom dëkk bi bëgg na ko boo ñëwee fii fekk ko fi waaw ah, loolu moom ñu ngi koy seedal ñëpp di woo ñëpp ñëw màggal si fii si Touba Mawahibou waaw am nañ mbégte di fekkeewaat euh, màggalu sëñ Touba bi di ko fekkeewaat te tal ko tamit waaw ah, ñu ngi bék loolu si waa waa euh, Tawfekh Production ñoom ñoom dañuy ay ndaw yoo xam ne ñu am jul fam kii nu mu ti sax euh, ñu am fula lañ. waaw fépp fu ñu gis loo xam ne lu baax la luy doole lislaam waa dañuy ñëw may ko doole waaw ñun moom bég nañ si ñoom loolu fu ñu xew la ñu fekk ñu fa waaw ñu ngi bég si borom kër gi trop ñu ngi leen di bégee bu baax jaaraa ngeen jërë ngeen jëf ki tax nga tax soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu tax ab bisam mooy màggalub Tuuba weeru safar mooy bis ba Ahmadu na génnoon dajeeg noon ya daa bañ nit xam Tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rek moo taxoon mu la fas dëdd njaboot géeg ña daa jaayante fii Tuuba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gëna ful nattom ya ngir bañ mu dellu seeg ndam ci biir Tuuba moom rek a dem dellu si muslaawul tasalitu nii tey waay di wax lam daa wax bam jugul Tuuba abonneel gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si saa si. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo.